asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag maa ngi toog ak kenn koo xam ne defe naa ne xam nañ ko ci làmb léegi parce que li tax ma ne xam nañ ko ci làmb mbër ba mu yore moo tax muy cuun cuun di agent wu Tafatine hélas cuun di agent am yore ko di dox ay contrat ak yu mel ni kii noonu làmb ji nag fan yi defe naa ne ku ne gis na ni mu déngutoo yaa ngi dégg làmb ji liñ naan sàjje na yàgg maar loolu moo am mu bëgg a waxtaan ak cuun nag ci làmb ji ni mu sàjje ni ak ñoom itam ku ne xam na ni. am na ñu bés boobu ba tey ñu ngi dégg seen diggante ak Boy Niang waaye balaa muy ñëw foofu dama koy nuyu ziar ko balu ko àq ci weeru koor gi ñu nekk nii tey eh, maa ngi lay ziar grand Thioune. macha allah li nga sol sa habillement rafet na de. de même que toi. waay yaakaar naa ne lamb ji fi mu nekk nii yaa ngi yore tafaatin boobu ba tey yéen a ko gérer administrativement ak yu mel ne ki noonu tey ak lamb ji ni mu yëngutoo nii fu ngeen toll ak fu ngeen taxawee. waaw ni ngi bokk ci ñu koy gérer waaw waaw ni ngi bokk ci ñuy gérer Tapha parce que Tapha Tine c'est un ensemble ensemble la waaw ni ngi ciy sant yàlla nag quoi mais ni ngi suñuy entraînement waaw macha allah di préparer suñu combat waaw bu baax. seen combat ak Boy Niang ak Boy Niang loolu la. le 25 juillet incha allah waaw. par rapport ak adversaire boobu ngeen ko seqal defe naa signé waat na beneen contrat muy ñaareelu contrat plus seen contrat. yéen ci benn boobu rek ngeen yem wala bu ngeen gisaatoon beneen tey bu Gaston ñëwoon jox leen beneen contrat di ngeen ko signé wala beneen promoteur. mais loolu buñ ci tolloo dinañ ci wax ñoom seen contrat bi ñu signé ñoom la concerné personnellement man du ma ci wax waaw mais ñun bu ñu tolloo ci war a def leneen bu boobaa dinañ ci wax quoi mais pour l'instant ci li ñuy concentré wu mooy ci li nga xam ci la ñu nekk quoi waaw. kon daal seen contrat bi ngeen nekk nii rek yéen ci ngeen concentré. bu soobee yàlla waaw. kon daal am ngeen euh, euh, date bi nga wax la 25 juillet dañuy jàpp promoteur bi jàpp date bi ba CNG jox ko wala. bu ci yàlla àndee loolu bu ñu ci waree wax rek bu soobee yàlla dinañ gën a éclaircir gars yi bu soobee yàlla waaw mais pour l'instant du ma ci du ma ci sori. est-ce que nekk ngeen ci guddi gu bët seetagul lan mooy guddi gu bër sëgëru maanaam mbir yi bañ a leer quoi. non non dafa am sénégalais yu koy wax loolu yóbbante la. ñun xalaatuñu loolu ñun nous sommes très sereins. waaw te nañu ñaan yàlla rek yàlla defal nu sutura euh, li ci kanam la raw li bët quoi waaw. ay adversaire a ngi fi yoo xam ne tey parce que bu fekkente ne comme ni ñu gisee mbër yi signé nañ ñaari contrat ñee ñett ñee nangam pourquoi pas dafa war a mën a signé contrat parce que gis nañ fi Lac de Guiers Gris Bordeaux Eumeu Sène ak yeneen mbër Yékini Junior Yékini Junior sax bëre woon ngeen yéen a ko mujj daan d'accord mais yeneen mbër a ngi fi yoo xam ne ay xale lañ tamit ñu ngi reefe bëre ak ku mel ni Garga Mbossé Reug Reug am na contrat pourquoi yéen xalaatu ngeen amaat beneen contrat pour l' instant ñun ci li ñu am ñu ñun li ñu am nii actuellement ci la ñuy concentré wu sérieusement loolu ci laay wax quoi ci waaw ci la ñuy concentré wu quoi pour l' instant waaw waaw. kon yéen a ngi si yéen ak seen compte seen promoteur daal di Pape Thialis moo ngay nuy di ko ziar yéen a ngi actuellement contrat bi mu ngi dox normal. ni ngi sant yàlla macha allah ni ngi sant yàlla waaw ni ngi sant. Euh, tey tamit gis nañ benn sortie boo xam ne Moustapha gi moo ko def si sunu làmba ñu koy nuyu Père Tafa muy xam ne ne ci côté Coriace Coriace defe naa mooy ku dëgër. jàpp na ne boo comparé Tapha ak Modou Lo ci li ma gis li ma jaa li mu wax moom Modou daa mel ni mu gën a coriace sa mbër loolu euh, noo ko gisee wala noo ko déggee. noo xam nga euh, Tapha euh, Tapha Tine Tapha Gueye ñoom ñoom moom suñu grand la ñu ñëpp mais gis nga nit bu fekkee da nga nekk kilifa nga am écrit dafa am noo war a waxee moom nag moom loolu droit am la bu ko neexee mu wax loolu mais pour man personnellement li mu wax nee na. Euh, euh, Modou Lo est plus coriace que Tapha pour man c'est pas vrai c'est pas vrai non non non c'est pas vrai oui. pourquoi nga ne c'est pas vrai. Euh, Modou bi muy bëreeg Bombardier nan la demee. Bombardier daa daan Modou Lo. bi muy bëreeg Bombardier nan la demee. foofu amul coriacité foofu dafa am coriacité moom mbërëm mbërëm Gris moo ko gën a technique. Ama de moo ko gën a technique mu euh, Gris Bordeaux xoolal euh, daan yi ñu ko daan yëpp ci ci ci ci arène bi buy joxe exemple na joxe exemple yooyu tamit. Gris Bordeaux da nga yaakaar daa amul xam ci làmb ji la la la bokk waaw moom je pense que moom bu fekkoon euh, Tafa lu tax waxul loolu ah. est-ce ki ko laaj ci Tafa ci Tafatine la ko laaj. laajoo Tafatine moom moo jël sunu comme exemple mais moom am na exemple bu mu war a joxe. ci mbërëm moom waaw comme Bri Gris Bordeaux. da nga lire article bi mu jeex. non liiruma article bi parce que intéressé wu ma sax liir naa ci kaw rek quoi. est-ce que boo ko liiroon est-ce que du dañ ko poser question comme ni ma lay poser nii question mu toll. grand même buñ ko poser question question boo ma ko poser man am naa nu ma koy waxee moom loolu du cëram nit bu fekkee ne da nga nekk kilifa nekk mag bu a nekk yow pour ñëpp nekk universel. parce que taf euh, Tafa boo xoolee actuellement dafa nekk nit bu universel dafay wax ak askan bi yëpp dañ koy dégg kon buy wax dafa war a xool bu baax a baax a baax a baax a baax li muy wax parce que Tafa ah dafa am ay mbokk Gris Bordeaux dafa am ay mbokk ku ci nekk da ngaa am mbokk mais respect rek moo am solo ci àdduna grand le respect est très réciproque waaw chaque fois di donne joxe ay exemple ci Tapha Tine dañ joxe exemple ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux combien de défaites la Gris Bordeaux ñaata defet la am ah ah Gris Bordeaux nu jox ko suñu avance ñaata yoon mu daw. Gris Bordeaux daw avance Gris jox nañ ko suñu avance ñaata yoon mu daw na wax ci yooyu na wax ci yooyu yooyu moo am importance grand. jàppul daf leen a dépassé wala daw nga ko tuddee. dépassé waaw yow waaw grand waaw yow tamit combien de défaite la il a commis du défaite grand bàyyil waxul dépassé waaye boo waxee yooyu sax. non dama dama dama ne est-ce que jàppul loolu moom gis nga làmb ji ñu doon def yooyu moo fi jeex laaj transparence ak dëgg te yàlla tax fii làmb ji kenn wu fi kenn dañuy daanante seen biir kii day daan kii kii daan kii kii daan kii kii daan loolu moo fi nekk loolu moo fi nekk Gris Bordeaux setti nañ ko maintes reprises pour jox ko Tapha Tine il a évadé. il faut qu'on dise la vérité. loolu yàgg na waaye grand li ma la wax man xam naa li may wax lan la mais de toutes les façons nit daal booy wax da xam li nga xam ni moom ngay wax xam ni da nga universel nekk mag boo fekkee ni da nga bëgg yow ñëpp jox la cër yaa koy njëkk a jox sa bopp yaa koy njëkk a jox sa bopp moi je n'ai contre lui ah c'est un grand bu ma mus respecté mais nit ki boo fekkee ni da nga bëgg nit jox la cër da ngay xam li ngay wax lan la nga teg ko ci yoon. parce que àdduna bi amul solo Tapha Tine il a subi beaucoup d'injustice te injustice boobu moo fi jeex man maa la ko wax Tapha Tine il a subi beaucoup d'injustice te mbër yi kenn gënu ko ci kenn gënu ko ci yaru kenn gënu ko ci baax nanu bàyyi li ñuy def nanu bàyyi li ñuy def merci beaucoup. wane nañ bàyyi li ñan ñooy def. Euh, euh, euh, Babacar wax naa la li nga xam ni moomoo ma wax naa la ko. leer na sa bopp je pense que tey gars yi bu ñu déggee li ma wax dinañ xam ni li ma wax c'est la pure vérité. mais mais tey bu bu ma ñëwee tey comme exemple la carte Tafa gi xam nga nit ki tey exemple ñu laaj ko comme Tapha Tine moo diw ko dàq xeex nga ne noo tafaatin Tine moo dàq xeex wala Tafa ñu laaj ko diggante diw ak diw ku gën a coriace mu ne Modou Lo moo gën a coriace est que loolu tamit am na est que est-ce que loolu am na gravité. li ma wax c'est pas vrai Modou gënul coriace Gris Bordeaux sax gënul coriace Tapha Tine mais nanu xool combat Tapha Tine yi mu bëre ak Bombardier yi mu bëree ak Elton. Euh, Tapha Gueye li mu wax yow da nga jàpp ne daal du wax yooyu xam ju tegu la daal. non ni mu ko un technicien du analyser noonu non non no un technicien boo xam da nga bëgg ñëpp respecter la munoo analyser noonu c'est pas possible waaye munoo analyser noonu c'est pas possible waaw non analyse bi moom def ci jum waaw daf ci jum. léegi kon daal yéen ngi jàpp le 25 juillet pour seen diggante ak booy. incha allah incha allah waaw waaw. Tafa mu ngi ci entraîné. mais bu baax gis nga ko Tafa gis nga ko mu ngi entraîné nice waaw mu ngi entraîné bu baax. xale bu danger bu mën a bëree la. grand mooy de parole et beaucoup d'action noonu bàyyi ba boobu noonu bàyyi ba boobu waaw. dinañ ci xam dara waaw nan bàyyi ba ci tin tam mën na bëre waaw ñun tam am nañu encadrement waaw Balla Gaye Boy Niang combat bu bien la c'est bien c'est pas mal waaw combat bu neex lay doon incha allah waay waaw bu neex lay doon mais c' est bien macha allah yàlla na ko ci yàlla defal jàmm oui c' bien. loolu moom mënuma ci wax moment bi yàlla na nu yàlla defal sutura waaw waaw parce que ñun ñu ngi préparé suñu combat waaw ñu ngi préparé suñu komba waaw. jërëjëf Babacar man tam kontaan naa trop merci beaucoup. merci la cuun li mu wax wax ji leer na nañ ah olof nag ne na wax bu ne xëy na am na tontom xëy na moo tax mu wax tafaagee ci noonu mais tafaagee tamit xëy na dafa doon analyser rek joxe xalaatam mais làmb nag ku nekk ak sa dégg-dégg ak sa gis-gis beneen yoon rek ak Babacar Sy Equivox TV ak làmb du mën a ñàkk